salaamaaleykum sénégalais ñu ngi leen di nuyu déglu na sunu tonton Baye Bécaye Mbaye ngay wax Waly Diouf Bodian 700 personnes yu nu wax dañ leen a dàq ci port bi nga ni njiit day am yërmande Baye Bécaye Mbaye bañu démb bu nu nangoo tey seen pexe jubul te ki nga yéene dee bu feebaree doo ko gëmee Baye Bécaye Mbaye am na mbër mu toogoon ci sa plateau di wax li ko naqari di wax li mu sant ci Seydina Ousmane Sonko mu sell mi nga ni tëj leen micro bi kon baay Bécaye Mbaye ku doon bañ ñu wax ca dem démb tey boo wëlbatikoo dina conseiller wala nga ñu jox ay leçon de morale dama jàpp ni sa pexe jubul sa pexe bu juboon duñu yor réew mi sa pexe bu juboon Waly bu Bodiang du nekk port sa pexe bu juboon président Bassirou Diomaye Diakhar Faye du doon président de la république sa pexe bu juboon yow Baye Bekaay Mbaye Seydina Ousmane Sonko du doon premier ministre de Sénégal nga wax ni njiit day am yërmande surtout Afrique Baye Bekaay Mbaye quatre-vingt et quelques personnes le président Macky Sall rey nga toog ci réew mi am waxukaay am sañ-sañu mën a wax am possibilité man cee wax man cee dox waxoo ci bay bekaay mbay ñaari junniy doomu aadama wala junni ak lu teg le président Macky Sall tëj ci réew mi ñàkk doomu aadama ñoo ci nekkoon te ay jafe-jafe port bii ngay wax yow Baye Bekaay Mbay chaque jour que jëfee 700 personnes ngay wax waaye lu war a mat 700 personne dina fa ñàkk seen alal ci bi te duñu am fu ñu ko jooyee. nga jënd camion ko ñu décroché ko dindi appareil pêcheur bi wala ñu dindi appareil centralu air bi wala ñu dindi appareil commande bi yëkkati bu dee yi wala ñu sàcc ay pneu yoo daan yëpp ci conteneur yi bu dee oto yi ndaw yi ñuy sàcc seeni ci biir port bi ngay sàcc seeni batterie ci biir port bi nuy vide gasoil oto yi ci biir port bi nit ñëw di nomination bu bees tàq di Waly Diouf Bodiang mu gis ba nga xam ne ñii jàpp na ne mën noonu wala mën noo ànd mu ni daleen fi jëne yow bàyyi Bécaye Mbaye nga toog naa ko dañu am yërmande mënatoo joxe leçon ci réew mi bi Sénégal di tàkk yaa ngi ci réew mi bi Sénégal di nekk ci jafe-jafe yaa ngi ci réew mi te booba am nga sañ-sañ wax am possibilité wax am sañ-sañu dajale ñaar ñi nga xam ñoo tax réew mi am jafe-jafe te ba léegi defoo ko buñ tuddee Seydina Ousmane Sonko ngeen ni coupé leen micro yi suñ tuddee Seydina Ousmane Sonko mu sell mi ngeen ni fii di waxukaay tey ñoom ñu yor réew mi di wax ngeen ku bëgg na da ngeen di jox doomu aadama leçon de morale naan yërmande ak yërmande yërëm nit ñi la yàlla bëgg moo tax yàlla jaarale réew mi ci ñoom bay bekaay bay suñu wayjur nga réew mi li la fi fekk bari na te li nga xam bari na kon tey jii boo bëggee di waxe nii bàyyi li ñuy ñu doxal rek te nga neutre comme la neutre woon bu leen tudd bul jëm ci seen domaine donte ñooy président de la république tous les citoyens sénégalais ñëpp am nañ sañ-sañ waaye yow daa am noo doon doxe am noo doon waxe kon yow mënoo téere leen a yedd mënoo leen a jox leçon de morale te ñoom duñ wàcc yoon yi te duñ def lu noonu duñ dàq ku wul duñ fi jële ku fi jëleluwul lin teg mooy ran yi jub jub jubal jubanti wala jub bu ñaa li mu fekk port ko fësal bu ko waxee danaa ko da sos